voilà Moussa ni nga ko gisee ñu ngi fii ci école 5 bu Kaffrine mu nekk école bu élémentaire El Hadji Ndéné Jojo Ndiaye nga xam ne ci jamono bii rek dégg nañ li nga xam ne mooy inondation fi amoon askanu Diamaguène Centre doon ko joytu mu mel ni tey ci samedi bi veeru bis nga ay 13h ba léegi 14h rek wala 15h mooy yàlla ji mu ngi fi taw waaye li nga gis noonu mooy miiru école bi mën nañ la wax ne ndox mi tey wubale waat na fii nga xamante ni moom mooy Diamaguène Centre. gis nga ndox mi ni muy ni muy demee nii euh, ñu ngi fii nag euh, askanu jàmm gën yëpp dañoo génn euh, nga xam ne tey ndox mi mun nañu wax ne koñ bi yëpp da koo lëmbee dégguñ fi nag benn yàqu-yàqu waaye daal li leerte te wér moom mooy ne daal ndox mi moom am na effet boo xam ne mu ngi ko fay def jamono bii ci Kaffrine ndax bëri na doole donte li nga xam ne moom mooy sapeur yi taal nañu seen i machine mais fi ñuy wax am nañ ak longueur wu presque ay 300 mètres yoo xamante ni moo jaar ci buntu jumaawu El boobu Boubou Salam wàcc fi nga xam ne mooy école 5 à ndox mi mooy jógee côté boobu di remplir li nga xamante ni moom mooy ci côté poste courant bi nga xam ne foofu am nañ benn bassin sax bu ñu fi def bassin boobu mën nañu wax ne xam naa bu amul sens dina gaaw a fees parce que bu feesee li ci ëpp sàppari ñooy pompé bu mu mën a génn dëkk mel ni tey daal ci bi ndox mi daal di ubaliwaat Kaffrine mu nekk la loo xam ne Eh, askan bi wax dëgg yàlla ànd nañ ci ak tiitaange ba Moussa